ndax euh, murid yi ku ci xëy faaw di nga barkeeloo gën xasida maanaam daan nañ ko jàng mm-hmm. waaye tey dafa mel ne am na ak coppite gu ci am loolu laa bëgg aussi loolu xam nga murid moom ñu koy wax xasida tax mm-hmm. murid bu nekk am nga ca fas wooy war di nab nabee mm-hmm. di wootee bi si defe naa bi si xasida yi ci adduna bi kenn xamul nu mu toll waaye tey damaa wax ne mi ki war woote moo woote mu Cheikh Mahamadul Muntaqa santaane bis boo xam ne bisub xasida lay doon ngir nu yendoo koo jàng delluwaat ca boroom loola yi lan lay tegtale mooy jëmmi xaside yi taxawaay bi mu am ak jëmmi xaside yi lim mën a def ak li taxoon sëriñ bi taalif ko doonu lool loo xam ne rek noonu nag mën nañoo bañ a gën a yegg ci xam dëgg dëgg maanaam la mu doon di ko doxee ci ak xër di ko doxe ci xam ne ci programme murit moom xaside da caa bokk mook siyaare jeeg joxe addiyee ak daanoog jooy daa bokk ci programme mu murit waaye nag jëmmi sëriñ Touba ci boppam nag joxe ndigalul bis boo xam ne des koy defee loola moo lay indi la taxawaay xam yow li nga yoroon kon lu mu doon. li nga yor lan la ndax Serigne Touba. moo waxal boppam ne jëmmi njariñ yi ci réew yépp xasida yi danañ ma ko ñoddil sama mbind mii dana ma ñoddil njariñ yi ci réew yépp te du am benn lor nag. kon koo xam ne sa mbind day ñoddi loola. maqaamay góor yàlla yi nga xam ne ku mas a ñëw di bëgg a doon góor yàlla mhm. sa yitte at yu bari ngay def ngir mën a yegg mhm. mu waxal boppam ne jëmmi maqaama yooyu xaside yi moom a xëccal maqaamay góor yàlla yi mhm. jazabalil xot maqaamaat rijal wali tawa sayra rijaal yi wal majaal eh <laughs> kon loolu day am lu muy tegtale mooy wane ne jëmmi maqaamay góor yàlla yooya te jege seen borom ndax góor yàlla moom du su ko doone ci lu dul melaw topp yàlla ndax ba muy wax minal muminina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhim fa minhum man qada nahba wa minhum man yantazir kon lay tax nga am kañ woowee bakk woowee njariñ jëf ya nga war a jëfee ba man koo doon ba am bakk woowa lompañu doomu aadama ak sàgganteem ak ya koy gàllankoor bari na mu ne maqaamay góor yàlla yooyee nag ca doxiin wu sori wa xasidaama ko xëccal ba mu di taxañ boo tax bi ñu sëñ bi joxañ gis nga lam ñu lam ñu joxañ ca fam ñu ko joxañ jëmeñu ko jëmeñu ko waaye bokk na ca loola it li mu nu woo mooy xam nga jëmmi xasida ginnaaw bi ko sëñ bi tànn di ko tegtale am na ca yooyu xay su xure at la wax am sa yooyu xay su kutibat am ca yooyu xay su nuzirat am yu boole ñett yooyu yëpp nag ay su xure at aw kutibat aw nuzirat nga xam ne fees ko jàngee lees cay wut dees ko cay am fees ko binde dees ko fay am fees ko xoole te jàngoo ko sax loola dina ko am mu di loo xam ne dafay njariñ lu mu yàmboo ci lépp ndax xasida jaamu yàlla la mm. sëñ Muntaxa jaamu yàlla la woote ndax sëriñ Tuubaa mu ne kitaabati saarat ladallaahi l ahad mislu ibadaati wa dabba man jahad kon jëmmi xasida jaamu yàlla la mm-hmm. lim nu wooyit mooy jàng alxuraan istixfaar duwaa salaatu lépp a nga ca ndax kitaabat yi dikrun wa shukurun wa sadaat allahu arshada xilaami wal midaat loo cay def lépp cant la mhm. ak jëf ya ak melokaan ya ak doxin ya te yi am daax yi nga xam ne moom la def muy tawalif yi mu tarif mhm. lu waay di wut te bëgg am da caa nekk ah. bu ne ab jaam day soxoo tuub ñaata ci ay junni la sëñ Tuubaa taalif ci xaside yu jàngale tu bu dee da ngay bëgg a def tawasul jëm ci yàlla sa boroom damay wax ne Serigne Touba ni mu la koy defalee jàppandal gi mooy nga ñëw ne damaa bëgg cere ñu ne la demal ab toola nga ne dogal la demal nga ruuj mm. nga tàmbalee ruuj faru di xaar yàlla taw ngay bay di wollet di toppatoo ba góob jaag def say yëpp door a bojj wuti ku la toggal wut cere sëñ bi nag bëgg koo gàttal ci booy jëm ci yàlla mu ne moom wajaxal tawassuli li man yadhu bihi mhm. saadata daareni wax fi lii bii mhm. wali yi jut wali la si daani nas bi am ni wa ridwaan mhm. ya nga bëgg a muy texe gaa ngërëmul yàlla yëpp sëñ bi na defar naa ko ba mu yegg ba mu daje mooy def ko ci sama tawasul yi nga xam ne bu dee ñaan yàlla ñaan na yàlla ba mu nangu boo ca jaaree mu gën a gaaw te defe naa ku xam li ci autorisation ka jiitam réew du ko bind waaye ka ca am baat ku mu ko tafal ci saw këyit fu mu la ko tafal foo bëgg a jàll jàll te bokk ca nguur gaa ko waral ay garaatama ko may te man sañ la ko takkal ah. kon ku ko foo ko ma nekk féetal yàlla taxul nuy wax bu dee ci cant la waxtu wu nekk la muy bind di ko jëmee ci sant mhm. am daax yoo xam ne xamuñu toll te cant jaamu yàlla la alxuraan tudd na ko ñaan jaamu yàlla la alxuraan tudd ko mm. tuub sant eh, jaamu yàlla la alxuraan tudd ko lu ca nekk nag te doomu aadama waroon koo ber benn bu ci nekk mu liw sëla mu muy jaar ba yegg mm-hmm. sëñ bi dajale lépp muy xasaayidi nga xam ne bu bis boobaa bu ñu dajee bay jàng mm-hmm. la boole mooy ñu ngay boole tuub ñaan tawasulu sant toroxlu jublu wu leen yàlla lépp dajale waat nañ ko di ko def Cheikh Mouhamadul Mountakha jooju ca ndigal lool la ca gën a doy waar nag mooy gën ngaa jege fañ koy defee ah. ndax benn dëkk bi ci boppam ah. dafa am lu muy porté ca loola mm-hmm. daa am ci bokkam yu baax yi sëriñ Cheikh Corom sëriñ euh, Morante Seli dana sëñ Touba de dëkk boobee de Touba saa yoo ne fa tegg sa tànk mucc ci nax naxi àdduna ak nax naxi àlaxira huwa allasi man ataa yawman li maskanihi xayral masakini tuuba min dadin xaraja kon léegi dëkk bi am na lu mu porte ci loola ci ñëw gi nga ñëw ci dëkk bi muy ndigal loolu la sëriñ bi jox Cheikh Mamadul Muntaxa it te xam nga sëñ Boussra da ko wax léegi ne sëñ Tuubaa mooy bu jafee ma gën koo door a dégg bu baax ci ni ko sëñ bi waxale boppam bañ misaalee ne tubaab yi dañ koo jàpp dañ ne prisonnier tubaab yi la waxuma lam tontu ci asiru ne dañ maa jàppeekoon jàpp waaye daa leeral nit ñi ne leen ki gën a réer ci àdduna mooy ki ma jàppeekoon jàpp may yombal lu jafe man man maay ki yombal lu la lësi dal la lësi xad hmm. zanna nii asira xayru hmm. lësi yu yassirul asira kon mooy bu jafe ki mooy ki ma jàppekoon jàpp hmm. man maay yombal lu jafe yaakaar jën ko yaakaar ba tax ñu war a daje cam péncam di ñaan ci suñu borom moo assuré loola ndax moo ne yaakaar yi kii ma bëgg du tas lam yaakaar lu wér la ndax man la may yaakaar faa ko yaakaare lu wér la kon fa sama yaakaar tasewut loo leen yaakaar ci man du tas raja oman yuhibu nii mu xoqo indal la si lii amali yu xaq kon moom xam na fa mu jëm xam fa mu nu jëme loola mooy melokaan wa mu doxee ngir sëriñ bi mënuñu caa dimbale mu mel ni ab murit nag lu muy def ci da def ci tànnu boppam baax na lu muy def ci da ca roy baax na waaye def naa la def di gën baax baax ndigal a ci gën def loolu ndax lu dul ndigal amul njariñ te kat xamal ne ab sëriñ du bëgg nit ba fop njariñ jox ko te toppul ndigalam boo bëggatee ci sab sëriñ lenn njariñ jox koy njariñ sëriñ ku koy joxe njariñ mu di la jox ay njariñam te Cheikh mu Mountakha yàgg naa juñu ne xasida yi rek xasida rek yàgg na ko juñu kon tey bu demee ba ba mu wooteel ko boppam santaane ko kon am na sas wu mu gën a dolliwaat am na yaakaar ju mu gën a ubbi am na yoon mu gën a leeralaat mooy wane Serigne Touba ni mu bindee Serigne Touba ni mu jàngalee Serigne Touba ni mu doxale li sëñ Moussa Ka di wax nga xam ne tey boo ko doon wax day leeral mbind Serigne Touba rek sëñ Moussa Ka dane ne fi di werante jëru ko ndax arab duutu way ngir moom te loomal na koy ajal béréb xër nu jébbal nañ Serigne Baba moom Touba kenn duutu kalkali ngir jéem a way ndax mën ngaa way ñu ne ak a neexi baat ak a dégg arawut ak a nangam ak a mhm. waaye mbind moo xam ne saa yoo sëpp sa xelima ci daaja mhm. ba wistan tàmbalee bind aras di jaayu malaaka yi di sabba rasulullahi di ree léegi sëñ tubaay reeloo rasulullahi wala yàllaay reeloo rasulullahi ndake kon ci xasida yi la yàlla di reetaan loo rasulullahi adda xàkka la wax adda xàkka rabbi rasulullah bi xatti muxsi ilalla loola kon bu doon te genn lañ cay jàng mhm. waaye la ca gën a yéeme ca mu xaddamatul am daax lanu leerale mbir nee na ko yow rasulullahi dana la bégal sama mbind mi ma jël jëmee ko ci yow ak fu ñu ko mën a jànge doon ko ne sori na madinatu mën na wara yu fu ñu ko jàngee nga bég nga xam ne yàlla ko cay bégal yàlla yàlla da koy reetaan loo ci mbind mi yàlla di ko bégalaat ci mbind mi yu bashiruka al baaqi bi xatti karamatan wa in kuntu an ardal madinati sani mhm. te Serigne Touba moo wax ne xaside googu du mu xaddamatul am daax jàng na ko ci Gabon ci diggante ñaari îles yoo xam ne ne toll na ni da Ndar ak Ndakaaru waaye ne ba mu koy jàng ba eggal boppam ci yu bashirukal baaqi nee na laa dégg nuy jàng xasida gi ci rawdatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon loola mbind la yoo xam ne bu nu ci sëñ ba soññee mooy def nu bëgg a dimbale waat te da ngay dégg bu ne sëñ Tuubaa mooy solution day bari ñum jaaxal sëñ Tuubaa mooy nangam waaye ndekete yoo ngir ñu dégg ahadis yi lan lay melaw ah. yonent bi moo ne adduwaaw silaaxul mu'min mu'min waaye ndeke gànnaay gi jullit mën a yor mm-hmm. ngir mën a mucc ci lu ragal ak lu bëgg mm-hmm. ndeke ñaan la mm-hmm. ba ñëpp jaaxle ku am xalaat ñëpp a yem ak yëkkati say loxo amatuma pexe ka war a wax wax ka war a jàngale woon ginnaaw jéem nga mënoo dox nga xamoo baal ma jëf lan la jëflu mooy na jàng xasaa yi di Serigne Touba te Serigne Touba ci boppam lépp lu mas a bëgg ci digganteem ak boroomam ci xasidaam yi la ko amee lépp lu mas a liggéey ci boroomam xasidaam yi la ko amee nga xam ne waxtu wu ne lil muntaqa uktub maa yasurruhu bila nihayatin wa xidmati taxabala waxtu wu ne lu koy bégal ak nungu bind moom njàng moomu sëriñ bi santaane nag kon murit bu nekk daa war a xam ne ndigal la ka mën a jàng war na la ka mën a ñëw te mën a lali basang war na la waaye cay ka am mbuusug ndoxam woote ca war na ko ka mën a togg kafeem ngir joxe mën na ko ngir lan la Cheikh Mamadou ndax ñii ñooy demaale ñii ndax ñiy jàng mënuñu organiser mm-hmm. kon ñi leen di organiser ñee leen di jàngal ñii di leen organiser waaye ginnaaw da caa boole ndigalul fee samp kuy kuréel nag mm-hmm. nees fa def waañ mm-hmm. kon wane na ne ñii jàng nañ leen di berndeel ñii berndeel ñii jàng di leen yóbbaale yoolu berne ñii berne di ko yóbbaaleel ñay jàng sëriñ bi lépp di yu ñu daje loolu la ñu sant <laughs> macha allah macha allah waaw jërëjëf mm. euh, xanaa bu fekkee amaat question boo ko bëgg posé rek waaw man man amoon naa benn kii benn relance xanaa fi mu daanee lii nii sax lu am solo la mm-hmm. muy que ni sëriñ bi dafa woote mm-hmm. njàngum xasaayit muy durus muy rajas ba ci zikrullah mm-hmm. ba ci zikrullah ci programme bi la bokk yaakaar naa lu ci baree bari ca kanam dana leer ci biir yëf yi waaye sëñ Gana fi nga daaneele léegi am na ñooñ nag liggéey bi ni ko sëñ si waxee démb dafa yaatu ku mën a am baas andil ku mën a am ay toogu andil ku mën a am luñ xewlu ndax bi sëñ bi waxee loolu da caa joxañ ay waañ te ku ne xam ne bernde ci la bokk waaye fi nga daaneelee ni sëñ Touba mooy eh, ni ko sëñ Busra waxee bu jafe la ko sëñ eh, Ibrahima Diop almasar waxoon ne ko bu gaa ñi tiitee sax yaay seen rawkaay akrim bihi min imamin muhtadin alimin mal jalan ibadi wa man jaahum min al fitani léegi sëñ Gana tey rawkaay gi sëñ Tuubaa daf ne am daahuhu xaada lana salaaha wal amna wa tawfiqa tey bu ko sëñ Muntaxa wootee contexte bi nan lañ ko war a déggee xam nga sëriñ bi nee naa la léegi léppam ci biir am daa xam yi la ko amee Cheikh Ibrahima Diop moom moo wax da ko junj wax ne képp kuy sàkk ak jub yoon wa ngay jaar ngir jub mooy sëñ Touba. yoon wa ngay jaar. waaw ah, képp kuy sàkku ak tab. géej gëdul jeex mooy sëñ Touba. na mooy koo xam ne nag boo ko bëggee xam mooy gaynde guy ba ngéer muy Serigne Touba yàlla ma aare moo ko aar. mu ne kon bul jéem wut koo koy gam-gam leel noo war a def. sàkkul ci moom ngërëmul yàlla. Mm-hmm. kon lañ cay déggee mooy noonu mu dee ne ab muccukaay doon ab ab ab ab ab rawwaay ci képp ku daw jëm si ci moom moo ko njëkk waxal boppam faaza muridun qaadahu llahu ila taalluqin bi wa yaxza bi lillah bi yàlla womat ba indi ko ci man am na muur mu rëy xam nga bëgg li muy neex neex bëgg loo xam bëgg loo am wut ko fa mu nekk nga am ko fa ko tax Cheikh Mamadou Fadal mu baax ma dafa ma xëy si sëñ Tuubaa ko dong nga yéem a yónni ci ak cant murid yëpp ngi lay gërëm di la sant ngir yow mënoon ngaa ñëw ba dem ñu door a ñëw mënoon ngaa ñëw ba noppi ñu bañ a nangu mënoon na ñoo ñëw it fekk nga ñëw ba dem waaw sëñ bi nag waaye cant gi lépp am na lu ko dàq mooy man ngaa bëgg nit waaye la ca dàq mooy mu xam fa mu jëm xam fa mu leen jëme man nag Mouhamadul Fadal neel dongo yi damaa xam fi ma jëm ba nopp xam fi ma leen jëme hmm. moo tax benn responsabilité bu muy daw amut hmm. xanaa luñ ko waxal waaye lu mu waxal boppam lu nekk na mu ko war a na ko war a waxee mm-hmm. noonu la koy waxee ci melo tagg yim tagg yonent bi salaahu salaam nga xam ne ci la bi wax ne nañ ciy ñëw mm-hmm. ba mu nekkee ca àll ba di mm-hmm. du ne jeeseem ja kenn du na nee na laa doon faja laa bëgg a nekkoon ca ñoom mooy sama bi rek di xam ne jeesi jun bocc boobu moo ko rawoon waaye nag falaax yi rajawtul yawma min xaalixil wara bi jaahi ladi am daaxuhu xat-xadaa sayfi nga xam ne sama texe yëpp maa ngi ko yaakaare ci daraje yi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne tagg yi ma ko tagg mooy sama jeesi yi bu dul jeesi yi xare yi jeesi yi yitte ju taxaw ju ne man ko dog ndax ginnaaw suñu Musaa Ka ne balaa la fa xew ci pays ci baatin ñi diisoo ak daam te mooy jeesi yi boroomam kon mën naa bañ a doon jeesi jële waaye jees yi dog lépp lu ñu war a dog la bu xare jotee mu mën a xare bu dog jotee mu mën a dog loola nee na maa ngi ko yaakaar ci am daax yi ma taggee tagg yooyu mu ko doon tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne lala dal ci alquran ci qiraatuha kanzi wa jaahi mhm. wa izzati uniltu biha kawni ladallahi sa sidqi ci qiraatuha googe la ko amee defe naa kër boobu waxoon na ne kon bu dee xaside yi moom it xam lu muy jur qiraatuha majjun wa nuurun wa rifatun wa jalbu mun a daarey ni naama zawaidu mhm. kon ndeke tedd nga la ca jàng ko leer la ji aw yiw la mooy yóbbal bi gën nit ki mën koo yóbbaloo mhm. waaye ndeke te la loola di bari bari ak la muy jëf-jëf seytaane mi dàq yàq am daax yii mu tagg mooy dàq seytaane zintu makaatiba taduuru abada mu mubbukiyatan man rabbahu lam yaabuda هرب من شعري إبليس المريد وبقصائدي يهتدي المريد يهتدي المريد يهتدي المريد وبقصائد هرب من شعري إبليس المريد moo tax Serigne Saliou daana wax ne buñ koy yëkkati ñu koy yëkkati fa kaddu ñu koy yëkkati toll Iblis du fa agsi moo tax Iblis ciw xel la dëkk ndax fu ne ña ngi fay tantal sëriñ beeg rajoy yu jol moom kon sintu makaadi bi taduru abada mu bukki yetan man rabbahu lam yaabuda saytaane <laughs> daw na sori min siar ci sama tagg yi ba bi xasaa idi ci sama xasaa idi yii mm-hmm. li murid mm-hmm. ca la murid bay jube mm-hmm. ca la murid bay gindikoo ca la murid bay jaare <laughs> kon loolu dañuy won ne li di wut lépp bëgg koo am da caa daje loolu nag yitte la laaj ah. doon rek sëñ bi woote na bisub xasida mhm. nga ne xëyee naa dëkk sàngam wala gonte naa béréb sàngam wala yeewoo naa Touba dem jumaa ji au lieu ko nga jëfe nit ñi fa yéene koo seetaan mhm. jàpp ne fu ne war nga faa sinep baa nga foto fa di wut koo lëngool ak sëñ diw ñëw na daa jàng si woon naa foto moom souvenir la sëñ bi wóotewut loolu waxut nañ daje si jumaa ja ngeen wut loo filmé mhm. am na ñu ko war foo toog dana la fekk ndax lii ay yitte lañ ko def mhm. bu dee loo bëgg seetaan la rek mhm. am na sëñ bi ñu ñu waajal kuréel yoo xam ne yow loo bëgg a seet boo toogee ci sa téléphone boobu da nga toog ba yàgg na dégg tong joo xam ne lam la yoon mooy la xew fa Tuubaa ñëw na kon yow woowuñu la nga ñëw di wër koo foto ak ko sineb lan la la wooye mooy mën a la jàng-jàng mënoo jàng deel jubanti da daal di murid yi tey laltaay yi joxe tey wane doxeenu teggin ak teey mm. du du loo xam ne dañuy daw di wëri jumaa ka riir ka yuuxoo ka mm. jërëjëfa Serigne Touba sëñ bi jàng la woon lu ca waaye def sa xalaatu bopp waaye bokkut ak li mu wax mm-hmm. na xasida yi jolli ca kaw mm-hmm. ñay durus di durus mm-hmm. ñay bernde bernde heure lu wóor kenn di wëri jumaa di yuuxoo ak Serigne moom fii loolu waxul jàng lu la wax kon lim la sant danga koy leneen loo def say bopp waaye lii la